ñoom dama demoon na maa ñoom bu ñuy defub siyaar daañu ma jox loola man ñaar téeméeri leetar mbaa ñett téeméeri leetar ma séddale ko ci koñ yi ku mel ni xalifa sëñ Omar Bousso yàlla na ko yàlla guddal fanam te dolli ko xéewal bu baax muy sëñ Moustapha Bousso ku baax koo xam ne kii moom it daanaa ko yit leetaram sëñ Modou Mamoun Bousso daanaa ko yit leetaram daanaa yit sëñ Makhtar Bousso moom sëñ moom moom sëñ Makhtar Bousso moom moom moom sëñ Dame Bousso imam daanaa ko yit leetar Alaaji Mbàkke Kebe daanaa ko yit leetar sëñ Mbay Njaay moom Baye sëñ Njaay Gédé daanaa ko yit leetar sëñ sëñ Cumbaleen Bousso daanaa ko yit leetar mboolem kilifa yi nekk ci koñ bi yëpp daanaa leen yit leetar sëñ Seexum sëñ Abdul Xaadir sëñ Seexum sëñ Seex Say maam Moorum sëñ Murtada moom moom dama ko fa fekk waaye dama fa daa bàyyi leetar ba xuma jàll na ci moom la jàllut ak kër sëñ Seex yooyu yëpp naa fa yóbbu ak sëñ amadu Muxtaar ay dabit gàmm kër yooyu ma la limal benn bu ci ne taxaw naa fa wàccee fi ñetti booli wala ñeent yoo xay liste bi man la koy jox sëñ Saliou jox ko ndigalal ne ko ñooñu ne leen bu ko dee woo ma ne ma yow nag gaa yi fi ñëwee da ci am ñooñu ay gan lañu waaye yow nag yow ci tuurum dëkk bi nga ne miin nga fi kër yu bari kër yu ñooñu ma la limel ñëpp kenn ku ci ne wàcce ne wàcce jay naa fa ay teraanga yoo xam ne moo moo moo moo leen ko jox ci ndigalal sëñ Saliou la ca topp mooy bari na it kilifa yu bari yoo xam ne yóbbu naa leen ci daara ja ñu wisit ko ubbi ko ca lool sant ma lool gërëm ma lool daara ji daanaa yegg foo xam ne fii sax su ma paas sax damay dox ngir dem fa yendu fa waxtaan ak ñoom waxtaan ak sëñ Aatu doog a dellusiwaat ñuy jëm yoo xam ne it yóbbu naa fay nit ba tey ñu ganale leen ngan goo xam ne gii rek yéeme na macha allah màggalit daanan ma jox ma def ci ay waxtaan ak i seere toujours émission yooyu bari na ñu ko seetaan daana ko defee euh, biñ tàmbalee di jàng deux mille dix huit deux mille dix neuf ci kër sëñ bi sëñ Muntaxa ne leen dee leen ñëw di jàng lu war a mat waxtu nu doog a dog boobu dama ko daa ànd ak ñoom maa ngi gërëm bu baax. ku ñu wax sëñ Ali moo daa jël otoom doon na ma woon barki démb moo daa jël otoom ñëw ba pii jël si ma bu ñu jàngee ba jeex mu dellu si ma yooyu yëpp dama ko daa ànd ak ñoom barakallaahu euh, ba tey euh, ñii njàngum kuréel tasaaroo ci réew mi yàlla nañu ko yàlla fayal lépp jëmm ma ci moom la ko sëñ Touba jaare boo dajalee nag lépp sëñ Touba la dëgg la lépp sëñ Touba la waaye leen lu ne sëñ Touba daa am fu mu koy jaarale lenn lu ne daam fu mu koy jaaral gone yi di kuréel di jàng sol bàyyi laat sëñ sooy bu mbaa yére yu xabtaan mbaa yu rafet toog yaru lool di yëkkati ba ñëpp di leen yéem ñëpp ñu ngi ko toppandoo jële ci bu Tarqiyyah waaw daana wax ne ma bàyyi ba da ma ne ko mbàkke mu ne foofu gis ñuy kuréel rek ma ma ne ko ah, mu ne ma ci ci bu Tarqiyyah lañu ndax is bu tarxee is sëñ Tuubaa lañ ñoom ñi koy def it dongay sëñ Tuubaa loolu daana ko seere ci mboolem daayira yi waaw ba ci 2016 euh, kii bi ñu doon def dakaar muy journée Cheikh Amadou bàmb bi ñu doon def dakaar fii juróom-ñaari bis départ na ci sama koñ yoo xam ne Modou Thiam 15 ak ñoom sëñ Saliou Mbeng daayira sopp sëñ Saliou bi nekk fii. ñoom laa ci waxtaanal ñu dajale leen fi ñu déparé fi kenn ku ne dajale addiyaam lu jar galaas yóbbaale ko cuuneen organisé woon naa ba ñaari biis déparé nañ fa ñoom it dem Dakar ci yooyu yëpp ñoom ñoo ma ko posé jox may leetar wax ma ne ma nga invité leen ñu dem ñu dem ñu ñu ñu dem dakaar loolu it ba tey euh, def naa ko ñoom fii euh, ci koñ bi bu desee leneen loo may laaj.